yoonu mucc gi yàlla tëral saa yu ngeen déggee joololi bi taxaw leen xalaat te jéem tontu ci laaj bi gannaaw loolu mën ngeen wéy ci seen déglu fanweereelu njàngale mi yàlla yónniwul yonent diiru ñeenti téeméeri at nanu bamtu nettali yi weesu benn lan la yàlla tere aadama ak awa yàlla tere na leen ñu lekk doomu garab gi tax lu baax ak lu bon ñaar lan moo doon bakkaaru iblis yëgoon na boppam ba bëgg a def boppam yàlla ñett lu tax yàlla daan nit ñi ci jamonoy noyin ca mbënd ma ndax seeni bàkkaar te gëmuñu woon yàlla ñeent lan la yàlla digoon Ibrahima yàlla digoon na Ibrahima ne ab sëtam dina barkeel àddina si. juróom naka la yàlla musalee waa Israël ca Misra. musal na leen jaare ko ci ay kéemaan ak ci Musa. juróom benn lu tax yàlla yónni ay yonent ci waa Israël. ngir ñu artu leen ci seeni bàkkaar te xamal leen mbirum musalkat bi war a ñëw. juróom ñaar naka la ñuy xamee ne yàlla bëggul bàkkaar. ndaxte yàlla bàkkaar yépp lay atte juróom ñett naka lañu xamee ne yàlla lu mu digee def ko ndaxte lépp lu mu digee woon def na ko juróom ñeent naka lañu xamee ne nit ñëpp dañuy bàkkaar ndaxte bépp doomu aadama bàkkaarkat la fukk lan mooy atteb bàkkaar kóllëre ak yàlla gu tas ak benn lan la abel saraxe ngir wuutu ko ci peyu bàkkaaram dafa rey xar mu amul sikk tuur deret ji ngir jot bàkkaaram fukk ak ñaar lan moo wuutu isaaxa bi ko Ibrahima di waaja a sarax yàlla. am xar fukk ñet ñett ca jamonoy Musa la moo wuutu woon taawi Israël yu góor ngir ñu mucc ca malaaka deega kër gu nekk tuur na deretu xaar mu amul benn sik fukk ak ñeent lan la waa Israël daan saraxe ngir mu wuutu leen sunu bàkkaare am xar ba tey fukk juróom lan la sëriñ bu mag bi daan indaale ngir taxaw ci kanamu yàlla ci biir bërëb bu sel baa sel ba at mu nekk deretu am xar mu amul benn sikk ngir saraxe ko ngir jot bàkkaar yi waa Israël mbind mu sell mi nee ci malasi saar ñett aaya benn ba aaya juróom benn aji sax ji man lépp nee na maa ngi nii di yónni sama ndaw dina xàll yoon wi fi sama kanam te boroom bi ngeen doon seet dina na parax dugg ci màggalukaayam te ndawul kolere gi ngeen doon sentu mu ngi ñëw waaye ku mën a dékku bésu ñëwam te kuy sañ taxaw bu feeñee ndaxte dina mel ni safara su xellikat ak saabu fóotkat dina toog di seyal ak sellal ni kuy xelli xaalis te dina sellal doomi lewi segg leen ni ñuy seggee wurus ak xaalis dinañu jébbal aji sax ji sarax yu ànd ak njub noonu saraxu yuda ak yerusalem dina neex aji saaji ni ca bés yu jëkk ya ni ca at yu weesu dina leen jege ngir àtte bi te dinaa yàkkamti ci daan lu xërëmkat yi ak njaalookat yi ñiy giñ ci lu dul dëgg ñiy dogandu peyooru liggéeykat yi ñiy fitnaal jotun ak jirim ñiy tooñ toxandéem waaye ragaluñu ma moom la aji sax ji man lépp wax ndaxte may aji sax ji duma soppiku bu leen fàtte ràññee melokaani yàlla yi ci nettali bi yàlla yónniwul yonent diiru ñeenti téeméeri at nettali bi mu ngi aju ci bi yàlla toogee ñeenti téeméeri at yónniwul yonent bi waa babilon jàppee waa israyil lañu tojoon kër yàlla ga ak miir yi waroon yerusalem léegi yàlla borom bi xiir na sirus buuru pers ci mu tabaxaat kër yàlla ga ca Yerusalem looloo tax gannaaw bi waa Israël nekkee jaam juróom-ñaar fukki at ci babiloon mu bàyyi leen ñu dellu Yerusalem ci seen réew ñaari téeméer at balaa loolu benn yonent waxoon na ne dinañu jàpp waa Israël jaam waaye dinañu dellu seen réew yàlla musal na wa Israël bi ñu nekkee jaam ci Misra jaare ko ci musa bi yoon yàlla tànn na ñaari góor ñu leen di wax esra ak nehemiya ñu jiite waa israel ñu dellu seen réew te tabaxaat kër yàlla ga ak miir ya waroon yerusalem ca jamono jooju yàlla yónni woon na benn yonent bu ñuy wax malasi malasi nee na musalkat bi dina wàcc ci àddina ñaari yoon nee itam bala musalkat bi di jëkk a wàcc ab yonent dina ko jiitu ngir yëgal nit ñi ñëwam gannaaw malasi yàlla wàcceetul benn yonent lu tolloog ñeenti téeméeri at lépp li musa wax ak li yonent yi wax ñu ngi woon ci ay téere ci jamono yooyu téere yi ay kër yu gudd lañu woon yu ñuy laxas ci ay bant loxo lañu leen daan binde ñi leen daan bind ñu ngi leen daan woowee ay xutbakat bu ñu daan bind kàddu yàlla yooyu daawuñu ci dindi benn araf wala yokk ko ci mbind mu sell mi nee na man yowanna maa ngi koy wax képp ku dégg wax yàlla yi nekk ci téere bi ku ci yokk dara yàlla dina dolli ci sa mbugal musiba yi ñuy wax ci téere bi ku dindi dara ci wax yàlla yi nekk ci téere bi yàlla dina dind sa wàll ci garabu dund ga ak dëkk bu sel ba ñaar ñooñu ñu bind ci téere bi téere yi lañu dajale ngir am téere kolore gu jëkk gi kolore gu jëkk gi fanweeri téere ak juróom-ñeent la kolore gu jëkk gi moo ëmb tawret bu musa saboor bu daawuda ak yeneen téere yu ay yonent yàlla bind téere kolore gu njëkk gi wax na ci mbirum kolore ak yàlla ak nit ñi mu tànn maanaam waa Israël waa Israël yu dellu woon seen réew ñu ngi leen di woowee léegi yawut ñi ëppoon ci waa Israël ñu ngi dëkkoon fu sore kër yàlla gi daan nañu tabax ay jàngu fa ñu dëkk aseer bu nekk doon nañu daje ci jàngu yi ngir màggal yàlla amoon na ca waa Israël ay sëriñ yu ñu doon wax farisen daan nañu topp yoonu Musaa waaye yokkoon nañu ci daan nañu fitnaal ñu toppul woon seen njàngale amoon na ñeneen ñu ñu doon tuddee sadusen ñoom ñu ngi doon toppatoo mbirum réew gëmuñu woon ne ñi dee dinañu dekki ñaari mbir xew nañu ci ñeenti téeméeri at yooyu alexandar mu mag ma buuru grèce daanoon na daanaka réew yépp ci àddina jiite àddina si jafewoon woon na ndaxte amoon na làkk yu bare noonu mu santaane ñépp jàng làkku grèce gannaaw gi waa Rome itam daanoon nañu réew yi yilifleen ñu rey nit ñu bare ñu def yawut yi seeni dàq ba noppi ñu leen di fay galak tabax nañu ay yoon yu bare ngir lëkkale réew yu ñu yilif ñi ëpp ci waa Israël bëgguñu woon waa Rom gëmoon nañu ne musalkat bi ñëw dina daan waa Rom jële leen ci nooteel gëmoon nañu ne Israël dina am buur boppam te yor nguuram ay waa Israël daan nañu liggéeyal waa Rom am ñu ca nekk seeni juutikat waa Israël dañu bañoon juutikat yooyu doonte ñi ëppoon ci waa Israël topp ñu woon kàddu yàlla amoon na ci ñu ko toppoon ñu deme ni ko Ibrahima Isaaxa Yanqooba Musa Daawuda ak Suleymaan ñu bare itam gëmoon nañu dig bi yàlla dige ne dina yónni ab sët buy doon musalkat bi tey daan seytaane yàlla jàppe leen ni ñu jub ci kanamam ndax li ñu gëmoon li mu leen dig ñuy séentu ñëwu musalkat bi fii la nettali bi yem am na ay laaj benn kan moo bay waa Israël ñu dellu Yerusalem te tabaxaat këru yàlla ga moo xiir Sirus buuru mu bàyyi waa Israël ñu tabaxaat këru yàlla ga ñaar lan la yonent yàlla malasi wax ci mbirum musalkat bi nee na musalkat bi dina ñëw àddina ñaari yoon ñett gannaaw malasi ñaata at lañu ci teg balaa beneen yonent ñëw ñeenti téeméeri at ñeent ñaata at la waa Israël doonoon jaam ci Misra ñeenti téeméeri at juróom ñan ñoo doon xulbakat yi ñooy ñu doon sotti ak seen loxo téere Musa ak yu yi juróom benn téere yooyu naka lañu leen di woowe téere kolore gu jëkk gi juróom lan la téere kolore gu jëkk gi ëmb mu ngi wax ci mbirum kolore gi yàlla seqoon ak xeet wi mu tànnoon maanaam wa Israyil juróom lan moo doon jàngu yawut yi ay bërëb lañu ñu tabaxoon ngir jaamu yàlla di ci jàng téere kolere gu njëkk gi nit ñi daan nañu daje ci jàngu yi ci bës bi mujj ci ayu bés bi juróom ñeent ñañu doon farisen yi ak sadusen yi ay njiitu diine lañu woon ci Israël mukk naka la ñuy woowee waa Israël tey jii yawut yi fukk benn naka la yàlla waajee ñëwu musalkat bi ci àddina delloo na waa Israël Yerusalem ngir ñu tabaxaat kër yàlla ga ak miir ya bàyyi na waa Grèce yi ak waa Rome ñu daan li ëpp ci xeet yi ngir nit ñëpp bokk benn làkk te ay yoon yu baax lëkkale réew yi téere yonent yi bindoon nañu leen ngir nit ñi mën leen a jàng ca kaw ca jàngu ya fukk ak ñaar lan lañu gëmoon dëgg doon xaar ñu ngi doon xaar yàlla yónni musalkat bi mu dige yan melukaani yàlla lañu gis ci nettali bi ak naka lañu ci feeñe gépp mbaax mu ngi jóge ci yàlla yàlla delloowaat na waa Israël ci seen réew ngi ñu tabaxaat kër yàlla ga defaraat miir dëkk ba yàlla dafa jub donte ñi ëppoon ci waa Israël topp woon yàlla yàlla fàttewul woon ñi ko toppoon ñi gëmoon ne yàlla dina yónni musalkat bi yàlla jàppoon na leen ni ñu jub ci kanamam yàlla mooy boroom doole moo xiir sirus buuru pers mu bàyyi waa israel dellu seen réew ngir tabaxaat kër yàlla ga yàlla moo yilif ñëpp moo bàyyi grek yi daan xeet ya ba ñu bare di làkk seen làkk gannaaw gi moo bàyyi waa Room ñu daan xeet ñoom itam ba noppi tabax ay yoon yu bare ngir lëkkale réew yi te yooye jamono mujj na wenn làkk moo amoon te itam amoon na ay yoon yu bare loolu bokkoon na ci li yàlla tëraloon ngir waajal musalkat bi ab ñëwam beneen yoon dinañu waxtaan ci li nit ki mën a def ba mucc